Lac de Guiers tey bi wala bés yi di ñëw du neex ci moom ndax polisu géejuwaay bi moo ko jàpp gannaaw bu ñu ko doon wër lu yàgg lool moom leaderu écurie Walo bii lu waral lu ñu mel nag mooy plainte yu bari yu ñu tegoon ci kawam moom ak xaritam bii di AS Diagne bu ñu sukkandikoo ci senegal comme dafa am ñu ñu diggoon ni dañ leen di yóbbu ci Angleterre ba fayloo leen luy tolloog ci ñaar ba juróomi millions de francs CFA waaye ba tey gars yi gisaguñu ngelawu avion bay voyager gannaaw diir bu yàgg te Lac de Guiers 2 ak AS Diagne defuñu li ñu waxoon ci la gaa yi tàmbali tiit ni mbir mi ay door la léegi nag ñu doon jéem a régler problème bi ci jàmm ngir ñu delloo leen seen xaalis waaye sottiwul ndax Lac de Guiers ak waayam ji dañoo fàqoon kenn gisu leen ñu génn réew mi ci la police nag lancé ay enquête ba gis ni Lac de moo ngi woon ci réewum France waaye nag bu yàggul ba mu dellusee ci suuf ci réewum Sénégal ci leen ko informé police bu waaye ñu lancé opération ci cité des enseignants bu Géejawaay ba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 sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps